remercier ñëpp donc di d'abord mes amis yi nga xamante ne ils sont ils sont venus tey ñu fekkee tournoi bi tournoi bi ñu ko tournoi xeex la donc feebar bi nga xamante nii moo dugg fii département Mbacké bi ak Sénégal yëpp dañoo organiser tournoi bi pour sensibiliser nit ñi pour ñu xeex feebar bi pour mu mën a jóg fii ci Sénégal donc di remercier ma mbay ki nga xamante ne nii donc moom moo initié tournoi bi man ma nekk parrain bi. donc damay profité ci occasion bi vraiment di remercier ñëpp képp koo xamante ni dañu doon tournoi bi donc plus particulièrement maa ngi remercier donc docteur Abdoulaye ñaan jàpp na ci président FC Baol tamit Alioune Diouf jàpp na ci samay xarit yi ñoom Birame Thioune El Modou Gueye ak waa parti ñëpp ci jàpp donc wax na lii c'est une première dañuy ñaan yàlla donc tournoi bi chaque année ñu organiser ko su ma tamit nekk la parrain ñu nekk parrain bi donc di wax ne ren nawetaan amul partout au Sénégal mais lii dañ ko def rek pour sensibilisation nit ñi sensibiliser ASC yi sensibiliser les jeunes pour ñu mën a dem seen quartier yi delluwaat fa xeex ak feebar bi muy corona bi ba mu mën a génn Sénégal damay wax tamit lii ñi ngi koy def ci contexte boo xamante ne nii le football Mbacke waa Mbacke vraiment infrastructure amuñ ci dara Mbacke naa rien. ren équipe fañon bi nga xamante ne nii mooy FC Baol avenir de Mbacké ñu leen football dem ba Fatick jéggaani Diourbel jéggaani Bambey jéggaani fépp dem ba Fatick Mbacké amul infrastructure sportive loolu nag suñ demee ba que parce que tous les départements toutes les régions du Sénégal nit ñi di compétir la région de Diourbel mënut am sax stade bu fonctionnel on se dit que c'est donc il faut que état bi jàppale les jeunes il faut que état bi. jàppale le mouvement mouvement sportif il faut que tamit état bi donc gëstu la commune de Mbacké Mbacké c'est une commune dépourvue dépourvue de toute infrastructure Mbacké amul tali yu baax Mbacké amul euh, stade bu baax Mbacké benn lycée la bu baax bu tane la am Mbacké n'a rien donc il faut que nous jeunes yi ñun tamit ñi nga xamante ne nous sommes un peu majeurs par rapport à ça ñun ñëpp ne combat ñu ñu ne ko ensemble pour que le département de Mbacké lépp loo xamante ne nii yeneen région yeneen département yi dañ ko am Mbàkke man ko am loolu la pour mën a am nag il faut que ñun ñëpp ñu booloo nekk benn xeex ko ba état bi mën ko accordé le département de Mbàkke